télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir saytu sama laanu mi dundee. jox la kàddu. ngir nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko dara raw. Mm-hmm. visibilité dinga am. promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar am ndam. Ladoum TV télé askan bi mëne fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar santé animal fii ci Ladoum TV mbokk yi ba tey ci seen euh, première édition foire sama ñi ngi fii ci bergerie Al Amine agro business ñëw fekk fi nag suñu frère Khalifa mu nekk un grand champion nekk koo xamante ni tey eh, mi ngi liggéey ci élevage lu am solo mu ñëw nag def fi benn exposition bu rafet waaye nag gars yi dañ ko tuddee ci biir foire bi borom mbote yu gannaaw ndax lan mbote ñoo nekk nag di def foire bu extraordinaire ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax Khalifa waaw waaleykum salaam wa maa ngi nuyu sa téléspectateur yëpp di leen wax ni mbégte la ñu am rek di waxtaan yéen vraiment ci la grande chaîne de l'élevage muy Ladoum TV. mbégte gi c'est partagé mon frère Khalifa vraiment mu nekk liggéey bu rafet boo xamante ne yaa ngi nekk di ko abattre waaye nag ñëw fii nag defal ñu fi benn exposition boo xamante ne exposition bu doy waar muy mel ni euh, maa ngi gis benn tënk tënk bi mooy kan. waaw tënk bii mooy jaw comme que mbir mi dañ sama gox la sa gox nag moom bu xewle da ngay xool la bokk ca la gën a rafet ci gétt gi rek nga ñëw indi ko comme que ñëpp mënuñoo ñëw. waaw ñu tànn ci ak meññeef yoo xam ne ku ci ne dina wane liggéeyu démb bi ak tay fi yegg si kii mooy bébé jaw bébé jaw nag moom doomu faalaay la faalaay di yaayam di doomu héritier boo xamante ni ci doomu job si lañ ko teg mu jur femelle ñu jël femelle boobu teg jox ko nimzaat mu jur faalaay moom mii yaayam doomu abatrika la moom yaayam Euh, ci doomu Abitrika yi la bokk Abitrika mooy sama jeune mâle bi gagné woon sept deux mille vingt donc boo ko boolee ak euh, Nimzat bi boo xamante ni dafa jugewaat ci macha allah bi ak Roi Bachir par le biais de héritier moo tax produit mel nii ngay am. mu nekk produit bu rafet lool Abitrika defe naa bàyyi ngeen ko xel yéen ñëpp. jàppal ma yaay ji mu nekk femelle boo xamante ni femelle bu extraordinaire la moom tamit yaay. Euh, kii nag. doomu Abu Tirika la mais ba tey du yaayam euh, kii nag moom mooy Adama Sombe xam nga temps booy dafa am ay turi yu ñu daan fowee Adama Sombe awalaax danku cere léegi nag danku cere boobu lañ jël nag jox ko faalaay borom cere ji moom mu daal di siim am nañ ñoom ñaar doom bu doom bu góor mooy doom bi nga xam ni moom la boogaa exposé woon euh, si 72 heures yi waaw les amis euh, de la banlieue donc kii nag moom. mooy caatu Abu Dirga bu jigéen Abu Dirga kii la mujjee am donc daanaka moom bi muy judd fekk na abu daanu donc wax dëgg yàlla mu ne xar bu barkeel guddul fan ndax sama kër euh, xar bu ne benn yoon la la tëb amul amul benn xar bu mu fa defal ñaari porté ki mu fa jotoon tëb ñaari yoon sax xar bi dafa mujj avorté donc pour vous dire xar bu barkeel la te wax dëgg yàlla ba léegi dafa am jeexital ci liggéey bi donc boo ko xoolee nii moom nag lañu jël teg ko ci caporal chef caporal chef di doomu Sall Ngaari te jëpp gi mu jur benn jeune mooy jeune boobu nit ñi di wax moom moom moom la ñuy woowee adjudant chef. adjudant chef na ñëw indil ñu bu doy waar bu nekk di def foiram nag carrément def attraction bu baax a baax a baax. waaw adjudant nag moo wax dëgg yàlla moom suñu produit produit fi fini bergerie Al Amine la parce que bu ñu fàccee Al Amine dafa bokk ci filialu ferme Maktoum ferme Maktoum bu suñu papa Lamine Diop ñu koy nuyu au passage vraiment di ko ñaanal yàlla rafetlu nañ taxawaayam parce que suñu papa jooju ginnaaw bi mu génnee àdduna ak léegi dëgg yàlla taxawaay bépp bu suñu wayjur waroon taxaw ci ñun rek mu ngi koy mu ngi koy taxaw ci ñun vraiment di ko ñaanal yàlla adjudant moomu nag moo nekk nii di doomu caporal chef yaayam di doomu Abu Trika donc euh, moom tey jii le deux bi la am trois mois waaw tey jii la am trois mois le deux. mu nekk jeune mâle boo xamante ne rafet na lool def foiram bu baax a baax a baax waaye nag may seen ci biir benn fabelu cuulul fabelu cuulul bi mooy kan. Dama Ndiaye. xam nga euh, Youssou Ndour dafa Dama Ndiaye Dama Ndiaye daal di Moulay Aziz Dama Ndiaye soxna Asi Dama Ndiaye Dama Ndiaye boobu lay dellu. Euh, dama njaay nag di doomu Mirabel Mirabel mooy femelu Jabel Touré bi doomu Yelmin bi defoon record fila 155 point 5 daaneel recordu Maram Cissé bi moom moo taawloo kii may nuyu au passage Jabel moom ma ko joxoon bi muy nekk mboote am un mois mu jox ma ko vraiment ak laabiir ak vraiment ak yéene moo tax mu nekk également xar bu barkeel yaayam di doomu oncle benn oncle benn mooy vraiment xar boo xam ni dafa marqué élevage ci prototype am ndax xar bu mel noonu dafa raar am yenn macération yi am LCS ba pare am dayo ba pare macha allah euh, xanaa kay di ñaan yàlla yàlla barkeel rek waaye dëgg yàlla dugal bi ko dugal am na jeexital ci suñu liggéey bu baax a baax a baax boo xoolee doom jim jur ak faalaay rek di nga comprendre ni am na jeexital. pour yi fan nga koy jëlee nag yow tamit nag moom frère nag yow tamit nag xalifa nag. waaw mais xam nga nit ku nekk environnement bi nga nekk dafay am influence ci yow te euh, xar maanaam man xar li ma koy tuddee du ma ko préparé contexte ba mu ñëwee ak na ma ko sentire rek laa koy laa koy tuddee waaw euh, am na xar yoo xam ni tur yoo xam ni philosophie la. ay cëggal guy ay ay aadama sombi ay euh, ay ay marila ay maanaam man dama bëgg cosaan dama bëgg histoire donc ci sama histoire bopp wala histoire réew mi wala histoire réligieuse bu ci nekk source d'inspiration la ci man man parce que man dama nostalgique donc boo xoolee dama Ndiaye famille bi ñu jàpp sànq nga gis ni bi ñu ko tegee ci faalaay mu jur kii moo lay wan ni amélioration am na parce que déjà nii à pareil ak nii mu toll nii déjà yor na hauteur u yaayam yor na LCS su yaayam te mi ngi ci treize mois moom dama ko indiwoon pour euh, pour kii ko añel malheureusement mu mu foq vraiment moo tax moom lañ bëggoon évaluer mais malheureusement donc boo xoolee da ngay gis ni nim Nimzaat bi yokk na wet ji yokk na saxu yeel bi ba pare am nañ yaakaar ni incha allah bu defee benn portée ba ñaar dayo bi yaay ji am dina ko am mais vraiment ak ci beneen beneen splendeur boo xamante ni vraiment da ngay gis amélioration te am nañ yaakaar ni loolu lañ ci jublu woon te am nañ yaakaar ni yàlla dina ko ci def. mbote bi ndaw bi muy xam nga man toujours di comme ni ma la wax rek kii moom mooy dernier sujet bi moom soo dee xool moom suma benn bàjjan boo xam ne dañoo dëkkoon ndeysaan xam nga dëkk bu rafet euh, dafa neex maa ngi ko tuddee sama benn bàjjan boo xam ne suma papa ko jëloon nit ñu kii seen bàjjan la. ndax dëkkandoo bu rafet mun du doon Adja Tumbe Adja Cumbe Samb Ava Cumbe Samb moom laa ko tuddee mu nekk nday ndeysaan mu gaañu ren mu nekkoon maire boo xam ni vraiment daf ma marqué woon ndax ndax daf ma amoon ci man cofeel goo xam ni xëy na du sama jëmm au delà de relation bi ma amoon ak sam papa waaye sëriñam bi ñu ma tuddee woon xëy na moo taxoon mu am ci man benn cofeel mu marqué ma trop ma xool xar bi mu nekkoon yàlla defoon ko mu nekk nit ku koo xam ni boo ko xoolee sa yaram day daw ndax taar Euh, ba ma xoolee daal ma xool xar bi ma ma ne daal moom laa koy tuddee waaye nag li ma ci jaaxal waa foire bi dañoo changé tur bi comme que day génn barrière yi di doxantu waa foire bi tuddee ko rafet naa man leen waaye yéen kii tudd Adja Cumbe ngeen di ko woowee rafet naa ñu ne parce que day dox ci foire bi di wane ni moom daa rafet ñu tuddee ko rafet naa macha allah moom nag wax dëgg yàlla dafa xar bi ko jur lii mu jur nii dafa sedd suñu xol seddul suñu xol ndax ñun lim ñu jural mais dafa dal suñu xel. ndax ñi ñu ko jox ak yéene bi ñu leen ko joxee te ñi ngi ñaan yàlla mu jural leen lu raw lii mu jur fii ci rafetaay ci dayo ci macération parce que nit su fekkee ni da nga nekk sa xarit mu ñëw gis dara sa kër bëgg ko ba pare ñeme cee jël alalam def ci da koy ñaanal yàlla parce que du ñëpp a mën a jël seen alal def te du xaalis mais wax dëgg yàlla dama man daal dama am yéeg-yéeg ak yéene boo xam ne am naa ci yaakaar nag ndax yeneen famille yi ma joxe mu jur ci àll bi yu mel nii lañ jur yu góor yu góor ki ma ko ki ma ko jox nangu ma envoyé mboote ndax seen rafetaay waaw vraiment am nañ ci yaakaar moom nag yaay ji yaay ji doomu Alain la Alain moom Abou Trika ñoo bokk papa surtout Maktoum lañ jël jox ko Alain yaay ji ñëwul moom man maa koy nàmpal parce que yaay ji dafa ëdëmoon ëdëm bi xawoon ko sonal amul kii ma bañ mu am dépendance donc ma koy nàmpal donc femelle cuulul bii moom dafa seexoon seex yi bi mu demee moom deux mois dëgër ma faral leen bàyyi ko moom ñuy jàpp kii mu koy mu di ko nàmp su ko defee ñu koy suppléer en lait donc am nañ yaakaar ne vraiment feeñul ci moom moom bërki dem la am trois mois. am mbote bi moom li nga ci wax rek moom moo ci nekk waaye nag nga joxe ko ak xol moom baay bi jox ko euh, waa tempo bi jox ko ñi nga xamante ni tey boo dee xool ci élevage partage bi ñu ciy def yomb ci wax dëgg yàlla macha allah waaye nag lépp loo xamante ne ñaan nga ko ci rek yàlla nañu ko yàlla delloo yow it sa élevage ndax nekk na lu am solo macha allah femelle bi nag mooy. femelle bi mën naa la wax bàjjenu tëng yi la parce que moom yaayam doomu Nimzat la papaam di Ablaye Naar Ablaye Naar rakam bi topp ci moom muy formule 1 man maa ko yoroon Ablaye Naar dañoo jël doomu Ablaye ñaar bu jigéen. jox ko roi Bachir mu jur liira mu jël liira jox ko Alain François Alain mooy papa yi mu jur Ablaye Naar Ablaye Naar moom lañ jël teg ko ci doomu Nimzat mu jur kii mu nekk mu nekk une excellente femelle euh, suma suma grand pap pap moo ko indi Pape Loum euh, moom mbaalam bi moo ndukumaan moo moo moo jël deuxième def performance meilleure performance hauteur meilleure performance TP ak poids euh, donc moom moom moom lañ ko war a couragé vraiment ñu am ci moom yaakaar trop ndax vraiment ci melokaan ci bind ci dayoo ci LCS xar la boo xamante ni vraiment élevage mën na compter si moom. vraiment mu nekk présentation bu am solo sujet yu rafet lool macha allah waaye man li ma leen di garantir mooy li ma jaaxal mooy xalifa indiwul maal te boo demee këram. tey gars yi journal yi nga xamante ne moom lay produire dañ leen di jëkkante tellement que dañu am ay mensuration yu terrible mais également li ñu indi ci ay bota nekk lu doy waar lool macha allah ku ci mel ni fajar waaw lan moo tax indi woo maal yi gars yi waaw xam nga liggéey bu nekk rek daa fu muy toll te man li ma gën a bañ ci exposition mooy indi xar muy chaleur ànd ak nekk ak maal non seulement day xatal sa sa élevage sa gétt mais day xatalaale ñeneen donc bu ma demee ñaari mbote yi mën nañu maal def nañ attraction boo xamante ni mën nga indi maal bu mag sax te mën na ko bañ a def jibi li ëpp solo ci ci xar mooy mooy avenir ngay xool xar naan fii la war a jëm fii la war a jëm pour man loolu moo ëpp philosophie ka maal bi nii la toll maal bi nii la toll lii la lii la jur moo ko dàq euh, man dama gëm sama philosophie élevage sama slogan mooy la performance par la génétique dama gëm gène dama gëm performance mais dama gëm xar bu rafet ndax li ma gëm mooy xar yi ñun lekkuñu leen ñun éleveur dañu yar suñu xar mar day taal yàlla na jeex ba mu xëy dee mais lekkuñu ko bu ñu ko lekkee rek dañoo amul pexe kon xam nga xar yi lekkuñu leen dañu fexe ba tout le temps ñuy rafet dañu fexe tout le temps ñu am macération performance yooyu nag boo ko déggee muy macération te incha allah sorti yi di ñëw fajar moomu ngay wax ak ay production am dañ leen xaar ci machine bi je donne rendez-vous deux mille vingt cinq saison deux mille vingt cinq deux mille vingt six si la doomu fajar yi di génn bu soobee yàlla. aywa Khalifa ngeen di am noonu bergerie Al Amine agro business nekk un grand champion comme ni ma leen ko waxee tey man dama doon xalaat moom bu waree génn dem foire nan lay defee soiam tellement que vraiment il a de beaux sujets. très beau macha allah waaye nag liggéey liggéey bu takk-takk yu dëgër ci li nga xamante ne mooy mensuration bi mu gëm léegi nag bu ngeen ci bëggee am lu ngeen di vérifier da ngeen di dem ba kër ga ca bergerie ba ngeen xool dafa nekk loolu moom man maa leen ko dee adresse bi ak numéro de téléphone bi. waaw damay wax ni nag actuellement dama ñëw Kër Massar récemment. Hmm. depuis le 8 juillet laa ñëw Kër Massar donc maa ngi nekk ci rond point guy gii euh, boo ñëwee ba ci rond bi rek euh, boo duggee tali bi jëm ci kër Aziz Napoléon. Euh, première koñ à à à droite deuxième koñ boo ko jàddee fi feu nekk rek à côté parce que ñaari bergerie yooyu yëpp benn la donc euh, ñu ngi foofu Kër Massar unité 9 ci rond-point guy gi suñu numéro di 77 134 07 wala 76 662 00 00. kontaan naa ci dalal. no macha allah mbégte la toujours di waxtaan ak yéen euh, parce que Ladoum TV c'est la première chaîne de l'élevage.